alaaji mansoor tawdal jalaalaati sabral qalbu muslima yaa mujbal qawmi suudin wal baaya wal wal ma alaaji Maalik gis nga mag de alaaji Maalik nee na lu ma am ñaara ma ko may fonk mag ak tëral jigéen moo tax nee na góor bala ngaa mën a yor kër di nga def ñaar joxe loo mën a bañ ak bàyyi loo mën a faj nee na góor balaa ngaa mën a yor kër il faut ñaar nekk ci yow joxe loo mën a loo loo mën a bañ ak loo mën a faj xamoo góor du man maay maa fii góor dañ xam ku fi takk tubéy loolu du góor góor mooy ñu tooj la nga bàyyi mu sedd loolu mooy góor mu ni ko demal woon ma alaaj Malick alaaj Malick départ góor gi maam Amar ñëw ni alaaj Maalik kaayu sama papa mooy imaamu Njarnde kilifa la boroom xam-xam la alaaj Maalik ni ko jarul àggale comme mag la rek naa jug dem wuyu ko bi alaaj Maalik départ ak maam Amar Ndar ci la góor gi ma gumba Amar taxaw ci pinc péncu Njarnde ni maam Amar yónni naa ko gan gi muy woowi ginnaaw tàkkusaan lay egsi njarnde su fi egsee ginnaaw tàkkusaan dinaa ko jiital mu julli timis su ma ko jiitalee mu julli timis dina jàng ci rakka bu njëkk fatiha ina anzalnahu rakka ñaareel fatiha lu ila fi qurayshin bu ko defee nii mooy ki ñuy xaar pour mu yeggale diine gi ndax inna allaha yabaxasu li hazihi l umma man yujaddidu diina diinaha rësi kulli ma ati sana yonent bi nee na cent ans bu nekk yàlla dina yebal kenn koo xam ne mooy yeesal sama diine daal di jël sama risaala doxal ko ni ma ko doxalee innaka lir risalati xaamilun wa alimtu annaka baada sirri amaani waaye Cheikh Saadu abi neen yooyu ñu ngi doon jox ñu yeesal diina kaca raw gën ca mooy alaaji maalik ala faiqil aqraani waxul qarn aqraan la wax jamoo la ñu ni ko kon point kan mu ni maaliki dëhri yi moom jamono mu ni ko alaaji maalik ak maam ma ginnaaw tàkkusaan lañ fi egsi dinaa ko jiital mu julli timis bu jullee timis dina jàng rakka bu njëkk fatiha ina anzalnaaw rakka ñaare fatiha ak suratu xurees bu ko defee nii mooy ki ñuy xaar pour mu yeesal diina ji tàkkusaan jot yi njar ne yëpp génn taxaw ci buntu dëkk bi di xaar alaaji Malick yéex a ñëw ñuy xoolante ba mu yàgg ñoom ñëpp ñuy séentu daal di seen Malick Fawad di ñëw ànd ak maam Amad di ñëw góor gi ñëpp daal di joxante loxo xoolante mu ni benn tegtal baa ñu daal di dem ci kër ya timis jot alaaji Malick dugg si ci jàkka ji ma Amar jiite ko jiital ko alaaji Malick gàntal ma Amar wax wax bu dëgër ni ko fii kilif maa fii kilifa maay fol imaam mu daal di koy jiital alaaji Malick jàng fatiha bi mu jàngee fatiha ba mu daanu mu jàng inaa anzalnaahu rakka ñaareel mu jóg bismillahi rahmaani rahim mu daanu mu jàng surat xuraj góor gi ma Amar daa ma gumba Amar daanu ci biir julli gi bi mu daanoo ci biir julli gi ñu pare mu ni ko abshir yaa Maalik yàlla xamal ma ni diine gi nga nar a beesal ak góor yàlla yi ngay forme fii nga koy tàmbalee mu dalal ko ci néeg alaaji maaj dal néeg fajar guddi guddi mu jug di ko alaaji maaj daawul ye nelaw guddi imaam Moussa Diop moo ñu nettali jumaa sëñ Babacar Si ne na alxaaji Mansour moom it daawul nelaw guddi ndax ñoo daan fanaanandoo bu ñu fanaanandoo minute bu jot alaaj maaj ni ko Mansour mu ni ko ah mu ni ko jugal xool waxtu fi mu toll bu ko nee këpp këpp ko Mansour mu ni ko ah mu ko jugal tàngale ndox mi bu nee këpp këpp mu ni ko Mansour jugal ndox xool waxtu bi fi mu toll nee na ba fajar jot noonu la ñuy noonu la ñuy dunde moo tax alaaji Mansour ak alaaj ak sëñ Hadi Touré nee nañu waxuñu ni alaaji Malick du nelaw waaye nekk nañu ak moom fukki at yu mat sëkk mësuñu koo gis muy nelaw waaw maam Abdou lam toora nee na maam àddu nee na leen seen baay boobu seen maam jooju nit yàlla gu ñu sol xol malaaka la mu jug fajar di ko yeewi ubbi néeg ba fekk alaaji Malick di jàng alxuraan nee na mu gis moom ma gumba amar jumi leer yuy jóge ci néeg bi alaaji Malick nekk di tasaaroo ci àdduna bi nee na bi mu yeewoo la ni ko nag yow mii la yàlla doon xaar pour nga yeesal diina ji ce la commencé nag di former góoru yàlla yi moom Seydi Hadji Malick foofu la deux cent soixante-dix mu xaddam mu former leen foofu ci njaar ne ci sept ans mu former fa deux cent soixante-dix mu xaddam prépare ko ja euh, euh, daara ji nga xamante ni moom la fa yéenee samp ci Tiwaawan moom Seydi Hadji Malick lu tubaab bi lal mu lalli lu mu tabax mu toj lu mu samp mu sempi ko Seydi Mamadou Sow ni ko asnal kiraamu ala jamili fiaalikum بفعلكم يا مولى الأكل والشباب شباني يا من سلم الزمان شباني من ذكر شيخ عالم متورع من ذكر شيخ قابل أنام إلى الوداع الإسلام شيخ تقي لا يبك بريبة على استقامة بالإله المعاني عين الشريعة والحقيقة إنه تكل يهدي المريض بخالص أديان صاحب المقام وعمدة العلماء الموضع تاج العلا وكما تلا قمران هو ذل فضل وافر لمضلل لم يخش صالح وامنا الحيران وهو المريد وهو سعد مريده كم يا يا دامنا وعبدان ذا كم عثمان الكريم المرتدى شيخ المشايخ منبوه عرفان أصنع الكرام aalimin mutawarriin qaadal anaama ilal huda bi anaani mooy kan mooy Seydil Hadji Malick min zikri cheikhin alhaaji Mansour nee na min zikri cheikhin ci may bëgg a tudd benn sëriñ aalimin bu la neexee cheikhin nga ni benn sëriñ kon an nakiratu lil ifraat ku sopp Seydil Hadji Malick nee na bu la neexee ngeen ni min zikri cheikhin ci tudd benn sëriñ kooku nakiratu day doon lil ifraat bu la neexee ngeen ni min zikri cheikhin ci tudd turu sëriñ bu màgg kooku nakiratu day doon li taazim min zikri cheikhin nee na man alaaji Mansour may bëgg a tudd sëriñ moo tax sëriñ Cheikh Tidiane si nee na sëriñ alhaaji Mansour amul ku ko ëpp lu muy puukaree ñu ni ko lu tax ñu ni ko ku la jur alaaji Malick kuy sa baay alaaji Malick ku la jàngal alaaji Malick koo doon fanaanaral alaaji Malick fu ñu la ci wetu alaaji Malick ku alaaji malik mu ni alaaji mansour mu ni kon sëriñ cheikh ni ko huwal murtadal mahbubu la shakka annahu fatan la yusawa fi faxaarin wa suddadi alaaji malik moo la jur mooy sa jaay te moo la yar moo la xamal yoonu zikar si man nga door a samp kër min zikri cheikh moom moomu wax min zikri cheikhin Serigne Cheikh Tidiane si nee na alaaji Mansour sama papa fa maa xusta min faxrin yu assiru xasruhu ni ko papa li nga làq ci lu ñu mën a tiitaroo bëgg naa koo lim mais mënuma koo lim ndax bëri gu mu bëri wa maa xusta min fadlin awi si addudi waaye nee na yow sama papa alaaji Mansour man Serigne Cheikh Tidiane si maay wax ni lépp loo xamante ni làq nga ko ci tedd nga bëgg naa koo lim mais mënuma koo lim ndax dafa bëri ndax ar ridwaanu minallahi akbar ah, ah. Serigne Cheikh nee na li gën a màgg mooy ngërëmu yàlla murtadal mahboobu nee na ki yàlla gërëm sopp ko mooy alaaji Mansour la shakka annahu Serigne Cheikh nee na werante nekkul ni fatan laa yu saawaa fii fuqaarin wa sudadin cem la soo xam ne moom Serigne Cheikh Serigne moom fatan ñaar la ci tagg alaaji Mansour Serigne Babacar wa maata Muhammadan waaw diine fii ci Sénégal ba mu leer ci bët ñi mu leer ba ñu mën a taxaw ci ginnaawam di ko leeralal ku fi leeral diine moo la ko leeral wala ka la ko leeralal ka ko ko leeralal moo doo ko ko leeral ku fi am xam-xam moo la jàngal wala ka la jàngal ka ko jàngal alaaji Malick si moo ko jàngal ndax xam-xam bu bëri min zikri cheikhin najla Ousmane waaw yaa saada yaa man indahu wal ihsan wal juud المجيب والجبار أوحيد الوارد البر يا مرتجل عثمان يا سعد المريد يا ملك الرجوع والإعصام والجنة منك زيادة ترشينا مرمنا الإبلاه مضان الوعد المرمى يا أكثر سبايا منك شمس النار لا بدر ولا فرد على المنكر وعلى من بر من كان زفا والبيت ينتصر من حولهما برمت شمس النار

غيرك حبيب قلبك مقدم قاد لي الأنام إلى الهدى بعناني أيا والي المنصور يا خير مفضع خديم أبي عباس خذ لي هديتي سيد العراج مالك انا احت ركابي في فنائك راديا من الملك الوهاب إدراك منيتي سيد العاد مالك سيدنا قد العباد جميعا إلى الله فانخابوا بعثن سياستي بلي وعداد وحسن وسودة وحمل ألاو دون من وسمعته وعارة إبليس اللعين وعلبهم بعلم وعزم وصبار وإمته كل الإنسان وإزارة كالنار لو جاكم لا عذاب العروم مطرار داود من ذكر شيخ من ذكر شيخ سام sa soppe ba Sidi Maay Alaaji Abdou Aziz da baax waaw dama dem benn dëkk di fa waxtaan di wax ci mbaaxu Alaaji Abdou Aziz da baax min zikri shaykhin imam ba jug ni ma alaaji Abdou Aziz da baax dafa toog ci zawiya Seydil Hadji Malick min zikri shaykhin nee na benn góor daal di ñëw ni ko jugal fii sama place la alaaji Abdou ci mu woyof ga mu daal di jug bàyyi ko ak place ba alaaji Mansour mi raw ma ngi ne min zikri shaykhin te ba mu koy wax loolu alaaji Abdou Aziz da baax mu ngi ci zawiya baayam mu ni ko fii sama place la alaaji Abdou jug bàyyi ko min zikri shaykhin alaaji abdou demaat toogaat feneen mu fekkaat ko foofu ni ko fiit sama place la alaaji abdou jug bàyyi ko min zikri cheikhin ba mu ko ko defee ba muy ñetteel yoon alaaji abdou ni kon bokk naa jug génn bàyyi koog zawiya ba ba muy génn ci zawiya ba moom alaaji abdou sayyidul qawmi alhaaji mouhamadul mansour si malik ne mu dajeeg waa ji ci buntu ni ko xammee nga ma man maay kan mu ni ko déedéet mu ni ko man maay rasulullahi min zikri shaykh mu ni ko man la rasulullahi tànn naa la ngay sama xalifa ci kaw suuf yow El Hadj Abdou Aziz waa xanaa fii ku sopp alaaj Abdu nekku fi ku fi gënu sopp Bamba Malick jógal taxaw min zikri shaykhin bu ngeen soppee alaaj Abdu jóg leen taxaw ngeen màggal alaaj Abdu Aziz Dabakh min zikri shaykhin bu leen nee fittasu leen ngeen màggal alaaj Abdu Aziz ku ci mën a sar xolle wala nga mën a tàccu waay tàccu leen maam min min zikri shaykhin nee min zikri shaykhin ci may bëgg ma tudd benn sëriñ bu màgg a màgg alimin ku am xam-xam ba raw borom xam-xam yi ñu tegu seen kaw mutawarrin ku sàmm ba képp lépp loo xamante ni lu yàlla neexul mësu koo def xadaranaama ki nga xamante ni moom moom mën nit ñi teg leen ci yoon bi nga xam ne moo leen yóbbu aljana ilal huda bi inaani alaaji Malik yoon bi mu leen teg mooy yoonu njub boo xamante ni bi inaani ca gog ba mooy seyxun ne seyxun sëriñ la ndax xaqiqatu tuqa an yakuuna al aamilu ala xawfin laa yusann bi ribatin nee na sëriñ bu ragal yàlla boo xamante ni ragalam yàlla kenn du ko sikki sàkk laa yusann bi ribatin cheikhun nee na sëriñ la moom alaaji ma laa yusann bi ribatin nee na sëriñ bu ragal yàlla boo xamante ni kenn defu ko jotte ci lu ñuy sikki sàkk ndax araam naak araamul ala istiqaamati billahi waaye alaaji maalik lu ko may li mu am wa muaanin aji dimbalikoo la bi istiqaamatin inna allazina qaalu rabbuna laa summa staqaamu rabba bila xalwatin ashaabu alam hatta staqaamu cheikhun taqiyun laa yuzannu bi cheikhun sëriñ yo nga waaye sëriñ bu ragal yàlla mooy alaaji maalik dégg naa ci Habib Sarr mu ni góor gi monsieur Alé Mbaye mës naa ànd ak Seydi Hadji Malick cheikhun taqiyun jëm dëkk bu ñuy wax meññele ba muy dem ba ci yoon ba fasam daal di wu ngooñu jàmmur cheikhun taqiyun la yusannu bi ribati na alaaji Malick toog fa suba ba ngoon di xaar borom tool bi pour mu ñëw cheikhun taqiyun la bi ribati na bi borom tool bi ñëwee alaaji Malick ni ko ndax yaa moom tool bi mu ni ko maa moom tool lan moo xew alaaji maal ni ko sama fas moo lekk sa ngooñ te xajoow maag moom ala waaji ni ko sëriñ bu mat sëriñ laa doonul waaye jàpp naa la alaaji maalik dootuma uteetu sëriñ yaa kooku mooy cheikhu suyuuxu sëriñu sëriñ si moo jàngal réew mi jubal leen jubanti leen jóor fi jàkk yeeg jumaa yi ba ñu ne xas moom alaaji maak radiallahu taala anu moo leeral yoonu l'islam fii ci Sénégal ba mu leer ci bëtu ñu mu leer ba ñu mën a taxaw ci am di ko leeral moo tax tubaab bi ni la vie et l'œuvre del Hadji Malick Sy constitue une histoire parsemée de faits et des événements qui méritent d'autant plus d'être connus et reconnus divulgués et enseignés qu'il des viatiques les plus riches les plus beaux dont le, le Sénégal, l'Afrique, le monde entier ont en un besoin en ces heures de mondialisation et de crise paradigmatique dans lesquelles hommes et femmes, jeunes et filles sont irrésistiblement plongés. Aladji Malik condensé des vertus ayant su imiter avec la plus haute perfection le modèle sublime du prophète. Salut, et saluer sur lui, sage parmi les sages, doux et paisible, généreux et ouvert, fraternel et serviable. à la piété exceptionnelle tout égard incomparable Al Hadj Malick Ibn Ousmane. moo tax euh, Cheikh Gassama ni ko bàyyi moo dësi yaay suñu njiit ba woo fi ñun taxul ñu tiit foo nekk doo deñ di ñu nit doo fi jug fi ñun amoo moroom xanaa boroom yoneen bi yaa fi doon sa dundu geeg sa léppi koom sa mbir dëppoog lewer ci yaa mata rëy si ku la rëy Cheikhu Tijaan Chérif te Cheikhu naa waaju ko rëy sunna si yoneen bi doo ko rax wëññi nga fii lu di lëndëm wëññi la ruu yi ji nga lam nga gaaya daan xalam ba waaji jug fi ñun xam le nga fii ba ñëpp xam nga bën nga fii sa dex yu lëm ba waaja daan di néer lu gëm te taalu loo fi benn sox lu dul sa téere bi kurus gi ak sa bopp bi fii nga xaree sa jàng bi lii nga saxal ba ñëpp fa di jàng ak di jàng loo di moytu ak di moytu loo nga nekk bu sooñu na aynu shariati wal haqiqati su jërëjëf yéedil jërëjëf yal na yàlla barkeel. waaw Abdou Fati.